kàppaara bàkkaar hmm? te mm. yi nga xam day effacé yi nga xam ne day effacé wowu xol yooyu lañ doon eh, jàngale yi nga xam ne tamit day doon li ngëm yàlla yooyu lañ nekkoon suñ dal si keroog bi ñoo ngi doon jàngale bokk na ci ne kasratu tazkarin maniyati wal bila wa kasratu tazkarin maniyati wal bila wa ahwala qabrin wa suala wa kasrati nee na bokk na fii nga xam ne dañuy effacé bak dañuy effacé wowu xol xam nga jullit sa xol woowee rek yow texe woo yi nga xam ne dañuy effacé xol bu wow te tamit di yokk ngëm yàlla waxoon nañ ne bokk na ci fàttaliku almaniya ci dee tazkaarul maniya ak bila ràpp ràpp mooy bàmmeel yi ak fañ dëkkoon dëkkatu fa kenn nekkatu fa ngay ñëw di ko fàttali pour mu won la ne adduna taxul kër gu ñuy jàll di wéy la eh, kër gi sax mooy alaxira alquran nee na wala al axiratu xayru minka min al ula alquran wax naag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bésu alaxira moo gën ci yow ci àdduna ndax àdduna kërub wéyukaay la dañ ci jàll jaar jàll adduna taxul eh, comme ni ko alxuraan nettale moo ngi mel ni taw bu tawoon ba tëbër gàncax gi tax naat lool te benn des gi fekk mu wow noonu la adduna mel Eh, góor yàlla yi bëri na ci góor yàlla yi ñoo xam ne dañ daan sax dem ci bàmmeel yi toog foofu di wéttalikoo néew yi ngir jàpp ne àdduna nekkul kër guy sax am na ci ko tudd Ibrahim ibnu Adham ñu koy tuddee Cheikhu Zahidin Ibrahim ibnu Adham benn wali yàlla la bu dëddu àdduna baayam dafa gaañu baayam nekkoon buur moom mu war a jël nguur gi mu daal di àdduna adduna ginnaaw ne moom jëlul nguur gi waaye day dem ci àll bi jaamu yàlla comme ni ko mutasawi fi nay daan defee nee nañ ku dëddu adduna naam rafet na lool waaye ki gën a dëddu adduna mu rafet mooy Ibrahim ibnu Adham mi nga xam ne adduna jublu na ci moom ndax man ngaa woon àdduna ginnaaw te fekk adduna jubluwu la waaw yow te dëddu am na fu mu yem waaye àdduna jublu la nga woon ko ginnaaw loolooy dëgg-dëgg dëddu moom Ibrahima ibnu Adham daf daan toog ci bàmmeel yi ñu ne ko waaw sëñ bi lu tax yow ngay faral di toog ci bàmmeel yi toujours mu ne ajlisu bayna qawmin ida kuntu fihim laa yadurruuna nii wa ida ribtu anhum laa yaxdaabuuna nii dama far dama dama gënale toog ak ñoo xam ne su ma nekkee seen biir duñ ma lor su ma demee duñ ma jëf doomu aadama yi la plupart soo toogee ñoom soo génnee dem rek ñu commencé wax ci yow mu ne man nag damaa tànn toog ak ñoo xam ne su ma nekkee seeni seen i biir duñ ma lor ci seeni jëf duñ ma lor ci seen kàddu te tamit su ma génnee dem duñ ma jëw moo tax abul ala ilmiiri abul ala ilmiiri benn waay la ci góor yàlla yu màgg yi la ci ñu baax ñu la bokk ci lu yi ñu ne yi encore ci jamono moom tànnoon na dund goo xam ne dund boppam la moo daan wax ne abul ala il miri bu bi an innaasi xayrun min liqaihim wa qurbuhum bil hijawatin ibrahim mu ne man ma sori nit ñi di nekk man kefe moom moo gën may daje nit ñi mu ne ñu ne ko lu tax mu ne wa qurbuhum sooy jege nit ñi bil hijawatin ibrahim day woyofal sa xel day woyofal sa diine da nga wax loo warul wax wala nga jëf loo warul jëf mu ne kal bayti ufrida la itaa yadxuluhu wala shuzuzun wala bil bayti iqwa mu ne soo jàngee arud benn bayt su nekkee ne bayt fard la benn bayt ella bi ñuy tuddee shuzuz ak ella bi ñuy tuddee iqwa du dugg ci moom soo déggee ñu ne bayt bi iqwa dugg na ci rek wala shuzuz dugg na ci su nekkee ne jàng nga arud mooy poésie arab day fekk ay bayt yu bëri la waaye bayt bi su nekkee benn ella yooyu du ci dugg mooy firi ne mu moom mu nekk kenn wéet moo ko gënal ànd ak bindeef waaye nag toog di fàttaliku dee yonent yàlla Muhammad sallallahu sa la sallam nee na tere woon naa leen ziyaare bàmmeel yi waaye commencé leen di ko ziyaare ñu ne ko lu waral loolu mu ne ndax bàmmeel yi def leen di fàttali àllaaxira def leen di fàttali dee kon lépp lu lay tax ngay ku dee loolu lu baax la loolu mooy suñ dàtt keroog bi wa kasratu tazkaaril maniyati wal bila gis ngeen Seydina Ali ibn Abi Talib ñëw na ci bàmmeelu Seydina Fatima Fatima soxna yi Seydina Ali ibn Abi Talibin Fatima mooy jigéen ji gën a màgg gën a baax ci bépp jigéen bu yàlla sàkk waaw bépp jigéen bu yàlla sàkkoon ba ci Xadija yaayam moom Fatima moom la yàlla gënale ba ci Mariam yaayu Isa Fatima moo gën ba ci Asiyatu bintu Muzahim jabaru Firawna ma daan wax rabbi ibni li indaka baytan fil janna wa najjini min firawna wa amalihi wa najjini min alqawmi alzalimin ba ci aafiyatu moomu euh, fatimatu moo gën yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee mat ñi góor ñi góor ñu mat ñi bëri nañ lool waaye jigéen ñi daanaka kenn matu ci lu dul ñeent mu lim ci nag euh, Mariam mu lim ci Aafiyatu bintu Muzaahim mu lim ci nag Xadijatu yaa ngi dégg bi ak euh, Fatima Fatima nag li tax moom dafa am xususiye gu kenn amul genn wàll la ci jigéenu ajjana yi genn wàll la ci jigéenu adduna yi yàlla ko defal loolu moo taxoon moom du gis deret moom Fatima moom bi yonent bi génne adduna six mois ci tegu Fatima bi yonent bi génne adduna six mois moo ci tegu mu génn adduna nee na mënatul woon supporté dund ginnaaw bàyyam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Fatimatu moomu nag Aliyu moo ko sang moo ko suul benn bés ñëw na ci bàmmeelu Fatima daal di waaye ba mu wooyee dégg na lu ko tontu ci biir bàmmeel bi bayt yaa ngi noonu ba mu ñëwee def ne maali marartu ala alqubuuri musalliman qabra alxabibi fa lam yarudda jawaabi a xabibu malaka la taruddi jawaabana amalinta baadi xullata alaxbaabi ba mu woyee woy yi am lu ko tontu ci biir bàmmeel bi te gisu ko mu ne ko qaala alxabibu wa kayfa lii bi jawaabikum amdan faqad amsaytu rahna turaabi akala turaabu maxaasini fa nasiitukum wa hujibtu an ahli wa an atraabi wa tamazaqat tilka aljuluudu safaa'ihan yaa taalamaa labisat rafi asiyaabi wa tasaaqatat tilka alanaamilu min yadi ما كان أحسن أحسنها لخط كتابي وتساقطت تلك الثنايا لؤلؤا ما كان أحسنها لرد جوابي وتساقطت تلك العيون على الثرى يا طالما نظرت بهم أحبابي ليني أي تنطلع يوحى من يوم يجري كبار من بيت سيدنا علي نجي تلك الكم لن نرح من سيدنا علي دفنة ما لي مرات على القبور مسلما لتحمن تمرهم لي سما بان لي لصبتي دي نيو ثم كن يقال يرد جوابي ثم صوم حبيب مالك لا, لا ترد جوابنا يو توفي لم ولا جر بس ما لم يو دوتون اما بعد قلة الاحباب انا كما قلنا خارطو مولا كافي بلغي سلاتو كل نيو سلاتو كويو tontu gi nag mooy xaalal xabibu soppee bi وكيف لي بجوابكم نن لا bi jawaabikum nan laa leen di wuyoo mujj naa nekk jukkundeeg suuf suñ dénk suuf maanaam maa ngi ci beneen bindéef soppe baa ngi nan laa koy mën a tontoo akala turaabu maxaasini suuf si lekk na samay rafetaay fa nasiitukum maxaasilin fa hujibtu an ahli wa an asraabi yàlla kiiraay na ma tey kiiraay nañ ma tey sama njaboot ak samay xarit kon duma la mën a gis nga soo gisee Seydina Ali di doxantu ba ci bàmmeel di di wax ak ñoom mooy fii fàttali ku dee dafa am kum lay yóbbu bu benn góor yàlla ñëw na ba ci benn bàmmeel mu daal di woy ñaari bayti waaye dafa am ko tontu ci bàmmeel bi te gisu ko mu ne ataytu alqubura fa naadaytuha fa ayna almuazzamu walmuhtakar wa ayna almudillu bi sultaanihi wa ayna almuzakka ida mastakar góor yàlla bee koy woy ci bàmmeel dafa rom ay bàmmeel rek daal di ko woy mu ne man de woonaa bàmmeel yi dama romb bàmmeel yi woote bi ma wootee fa ay nel mu azzamu ma ne waaw yéen ñi tëdd fii ana ku màggoon ci yéen nga xam ne moom moo yoroon pouvoir bi ñëpp respecté ko ay nel muhtaqar ana ku tuuti woon garaat koo xam ne kenn faalewu ko woon damaa bëgg a ràññee fi mu nekk nii ala bismillah iyakumullah bismillah damaa bëgg a ràññee fii nii fi ngeen tëdd nii damaa bëgg ràññee fii ñi yoroon pouvoir yi nekkoon buur yi ñi joxoon leen respect ak ñi nga xam ne ne firi wuñ woon dara fi ngeen teg nii laa bëgg ràññee ñooñu loolu laaj waaye am lu ko tont ci bàmmeel bi ne ko tafaanaw jamian fama muqbirun wa maatu jamian wa maata alxabar taruuhu wa taxdu banaatu sara fa tamhu mahasina tilka suwar fa yaa saaili an unaasin madaw amalaka fi ma tara mutada gisul la koy tontu nag am lu ko tontu ne ko tafaanaw jamian mu yaa ngi laaj ñooña tafaanaw jeex nañ jamian ñoom ñëpp kenn desut fama min fama muxbirum amul ku fi war a nettali wa maatal xabar nettali gi ci boppam deena xibaar ci boppam amu fi deena mu waaye ay sax ñooy xëy di gont di lekk suñuy rafetaay di lekk suñuy yàpp di lekk suñuy sidit yow miy laaj ay gars yi nga xam ne passé nañ démb dee nañ amaalaka fi maakara moo tabar mu ne lii nga gis ni xanaa gisoo fi la lay mën a waar bàmmeel yi ñoo ngi ne sell kenn yëngatuwul soo ñëwee ci bàmmeel yi dafa ne selew mooy benn xakim benn borom xam-xam dafa ñëw gis bàmmeel yi lépp noppi dara yëngatuwul mu ne ah zahir bu mu lay nax toujours zahir bu lay nax toujours ndax sell bàmmeel yi firiwul na ñëpp a ngi ci jàmm am na ñoo xam ne ñoom ngi leen di fëgg ay mbol dañoo ngi yuuxu ci biir waaye lépp a ngi rek ci zahir <laughs> sell gi ci zahir maanaam selew gi dara yëngatuwul ci zahir bu la nax ci ne am na ci biir ñoo xam ne nekkul ci jàmm moo tax mazahir yi zahir yi buñ la di nax ñu joxe ci misaal ñu ne ndox soo ko xellee ci kaasub ban kaasub suuf ndox la soo ko xellee ci kaasub weer ndox la soo ko xellee ci kaasu koor ndox la soo ko xelee ci kaasu ndox la ndox moom ndox la ak ko mën a xel kon falaa tax dànkal mazahir mu ne na nga fexe nekk ndox waaye zahir yi buñ lay nax ndax zahir léeg-léeg soo ko toppee rek mën na laa yóbbu foo xam ne lay sànq mu ne man ngaa yegg ci bàmmeel fekk ci lépp a ngi noppi nga yaakaar ne yépp ngi ci jàmm waaye fekk am na ñoo xam ne ñoo ngi ci biir kenn nekkul jàmm ci ñoom bëri looy fàttaliku bàmmeel dana effacé bàkkaar dana jégaloo yàlla dana yokk ngëm yàlla Muhammad ibnul Hasan xam nga dafa am benn góor yàlla boo xam ne euh, Bahluul la tuddoon Bahluul góor yàlla la dañoo jàppoon ne dafa dox si ndax góor yàlla yi am na ñoo xam ne ñenn ñi dañuy faral di dox doxlu fekke defuñu dañuy roog dox soo leen gisee fekke defuñu limaam Sibli nee na romb na ay xale ñuy dóor benn dof mu jàpp ne ay dof la rek mu dàq leen mu dàq xale eh du ngeen bàyyi ki ngeen di dóor dina dof la dof la mu ne waa dof la mais bàyyi leen ko mu dàq xale yi ba mu leen dàqee mu ñëw déglu ndeke dof bi am na lu mu doon wax mu ne balaa maa dem naa fexe déglu luy dof bi di wax mu dégg dof bi di wax jamaaluka fi ayni wa zikruka fi fami wa xubbuka fi qalbi ay ayna taxiiru jamaaluka fii ay ni yow yàlla sa taara ngi ci sama bët maa ngi ne jàkk di la xool sa rafetaay yow yàlla wa zikruka fii fami sa tura ngi ci sama gémmañ musuma la ñàkk tudd hmm. wa hubbuka fii qalbi sa mbëggee la ngi sax ci sama xool fa ay na taxibu nooy def ba fàddu yaa ngi nii maa ngi nii xam ne nekk kii kiñ doon doon nekkul doon léeg-léeg da nga gis eh, yàlla bu màgg fekk ci meloog dof la bàyyi mus na toog di firi alquran rek am na benn dof bu nekkoon foofu Kaolack jamono bàyyi dof yi dañoo bëri woon foofu dafa mel dafa dem rek yóbbaale leen waaye dof yi bëri ñoo nekkoon waaye ay dofu yoo xam ne dofu xaal lañ bàyyi ngi tafsir alxuraan rek dof bi ñëw ne salaamaaleykum yéen ñi laay wax gis ngeen ciment bi ak yi birig yi bàyyi tabax fii nii pour jumaa ji la yeneen koy fàcc di rocc dar benn benn di yóbbu seen kër maa ngi leen di génneel alxuraan képp ku ci roccee ci benn birig danaa lakk sa kër rek ak gaa yëpp noppi bàyyi noppi ah mu ne dof bi waxu waxu nit la wax de bàyyi leen xel ci waxam ndax gaa yi dañ dañ daan tabax pour jumaa ji am yoro si birig yóbbu seen kër bi defal seen i dof bi ñëw wax ci làmmeñu yàlla waaye xëy na sax du dof ndax léeg-léeg eh, da nit yaakaar ne dof la fekke du dof baxlul noonu la meloon baxlul benn wali yàlla dañu jàppoon ne dof la rek buur bi dajeeg moom bëgg reetaan rek xam nga suñ bëggee reetaan ñu ne da ngay woo baaxlul mu wax la reetaan rek mu ne baaxlul mu ne ko mu ne isni waar ma tuuti waaye lu wax ko benn kàddu goo xam ne buur bi dund na ba génn àdduna fu mu toll moo ngi jooy ngir kàddu googu te nee na dafa ko ko wax mu ne nga ne ma waar la mu ne ko waaw mu ne ko haadihi xusuuruhum wa haadihi qubuuruhum loolu rek laay wax haadihi xusuuruhum lii moo doon seen étage yi moo doon seen pale yi wa haadihi qubuuruhum fii mooy seen Mm-hmm. dof la waaye bépp kaddu bu ñuy waaree nit pour delloo ko ci yàlla tënk na ko ci ñaari kaddu yi fii moo doon seen pale yi fi yéen doon noosee wa haadihi quburum tey fii mooy seen bàmmeel lépp loo waar nit ci alquran rek moo ngi diggante ñaari kaddu yi fii lañ doon dund di noos di fàtte yàlla tey ñoo ngi ni seen bàmmeel xaw ma lu fa xew te lu fay mën a xew toujours mooy la lañ daan jëf fii ci zaahir moom lañ leen di fay sii ci baat وتهم وكثرة تذكار المنية والدلاء وكثرة تذكار المنية والدلاء نقبل نعم، لا يفتلك دي أقرب دي تخ نقول جيجا يالله دي دي أفاسة مستبكة وأهو على قبر أكسيس بامير كيسين أكسي بامير ينقل نوخره نعم، والسؤال أقلا جي ملاكي بلاد وسكرة أكريختنو دي غير خلات دي نتيتم أكريختنم loolu day yokk ngëm yàlla waaye tamit wa nasbi mawasinin wa nasri saxaayifi wa ma fil jahimi min sibaqin wa xayati na nga fàttaliku wa nasbi mooy suñuy taxawal mawasinin peesekaay yenuy peesee bàkkaaru doomu aadama yi ak seeni tiyaab ndax bésu penc ni yàlla alquran moo ko wax wa nadau almawasina alqista li yawmi alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين القرآن يعني دفتنتم يا الله من ما يتك بلا سي تيسي جفلي باخي جفلي بنا لب كل القرآن يعني وإن كان مثقال حبة من خردل تنس كون يتجف دفتر لك بنا تبقى أتوم تبقى أتوم ما يتبقى سوف بو جل جل جل كفر تس أمني نفاتكان جفوا دفتر بنا تبقى سوف بو خاتي جرم ياري خاتي alxuraan nee na su nekkee ne sa jëf noonu la toll woon te mu làqu ci juróom-ñaareelu suuf atayna biha man danaa luqati insa ahlan bismillah danaa luqati jëf jooju kafa bina xaasibina doy na ci man xaasibina bismillah kay fa laal en des wa kafa bina xaasibina wa kafa doy na binaa ci ñun xaasibina ñu mën a tënk amul kenn ku mën a tënk doyeeg yàlla amul lenn la jëf ba réer am na ñaari malaaka yàlla def ci benn doomu aadama kii di jëf bind lu baax li kii di bind lu bon li waaye est dafa firi ne ñoom suñ bindul euh, sa jëf yi day bëri ba yàlla du ko xam déedéet laa ya'zubu an rabbika misqaalu zarratin alquran nee ne diggante asamaan ak suuf amul benn pepp atom buy fàddu yàlla waaye dafa def loolu ngir des penk yàlla ñu won la la nga jëfoon ne bindoon nañ ko dara manqué ci pour nga xam ne yàlla dafa maandu du tooñ kenn bëri lay fàttaliku suñ tegee feexe yi des pencum yàlla kenn ku nekk avant loolu ndax yonent bi waxoon na diggante jaam ji ak ajana diggante jaam ji ak ajana xam nga waxoon nañ ni am na juróom-ñaari bunt bi ci gën a woyof nee nañ mooy dee bi ci gën a métti mooy su yàlla taxawee doomu aadama yi taxaw ñañ tooñoon ci yéen ci yére ña tooñoon yére amu fa jour boobu xanaa ñu seeni loxo te kenn ku nekk na nga juddoo woon noonu ngay ah noonu ngay eh, deexkee bés pencum yàlla bés pencum yàlla amul yére bàyyi moo ko wax bàyyi na bés yàlla suñu deexee ñun ñëpp kenn ku nekk ni la yàlla tàkkee woon li nga dikkee woon ci àdduna noonu ngay deexee waatee mun na nag waaye nag am ku laaj mu ne waaw kon nit ñi kenn ku nekk da ngay gis sa awra morom mu ne mbir mi yegg na foo xam ne kenn du tala xool sa awra morom ndax tiitaange gi ak ragal gi waaye soo bëggee bàyyi ne soo bëggee yàlla suturaal la jour boobu ba mu mel ni yaa ngi sol yére na nga jël yére boo fonk nga jox ko sa mbokkum julli bàyyi nga koy wax di pare rek mu suñu manta ba mu soloon jox ko ama ba Amadou Thiam Amadou Thiam mooy kii bàyyi di wax Ahmadou Thiam kay yabustal ilma kaza rabbaani nafsuhu qad amma moo doon jàngale Medina Baye ne eh, i moo jàngale naxu ge maata xam-xam ñu ba doomu bàyyi ñu bëri moo leen jàng mu dindi manta bam soloon jox ko ko mooy firi ne sooy sooy jigéen nit lu baax bul fexe mu jiitu la ci waaye jiitu ci yow mm-hmm. woykat bi nee na wa innaka isma taati ma anta amirun bihi tulfi man iyaahu taamuru asiya su nekkee ne yow la ngay digle jiitu yaa jiitu def ko kon ña ngay digal soo pare rek ñu waaye soo digalee te defoo ko ñi ngay digal dina jafe ci ñoom pour ñu def bésu pencum yàlla yonent bi nee ne diggante jaam ji ji ak ajjana am na juróom-ñaari buntu bayna al abdi wa bayna al jannati sab'u aqabatin ahwanuha al mawtu wa at'abuha al wuqufu bayna yaday illah ida ta'allaqa al mazlumuna bi zalimin mm-hmm. diggante jaam ji ak ajjana kon ni liñ defe defa bëri mu ne juróom-ñaari buntu nga ñu mu ne bunt bi ci gën a yomb mooy almawtu mooy dee te waxoon naa leen dañu jàpp ne ñun boobu moo ci gën a jafe waaye boo ci gën a booboo ci gën a woyof mu ne wa af abuha bi ci gën a métti al wuquufu bayna yaday illahi mooy taxaw janoog yàlla bés kañ ci yàlla ida taallaqa al mazlumuuna bi zaalimiin ñañ tooñoon fiyee ca ña leen tooñoon te tooñ yàlla moo gën a woyof tooñ doomu aadama waaw mm-hmm. yàlla moom borom yërmande la te borom njëggal la soo ko tooñee mën na laa jéggal te du ko wàññi dara waaye doomu aadama sax boo ko tooñee benn yàlla du la jéggal tooñ boobu parce que du moom nga tooñ sa morom doomu aadama nga tooñ te doomu aadama gi eh, su la ko baalul bésu pencum yàlla ñaari mbir a fa nekk soo ma tooñee te ma la ko suñ demee bésu pencum yàlla ñaari mbir a fi nekk benn dañuy jël ci sa yiw dañuy jël dañuy jël ci sa yiw sa yu baax yi ñu jox ma man ni nga tooñoo su sa nekkee sa yu baax yi jeex na ñu jël ci sama ñaawteef yi yokkal la moom loolu yaakaar naa loolu suñ ko yokkul sax da daanaka du ko parce que comme que yiwam yi jeex na moom ku yiwam jeex moom defeetoo benn xam nañ ne safara safara rek nga jox waaye bénéfice ci man pour ñu wàññil ma samay ñaawteef jox la ko pour man man tamit ma gën a mën a préparer pour dugg ajjan yonent bi nee na ida taallaqa almazlimuna bi zalimin ne ñañ tooñoon nañ ci yëri ña taxaw des yàlla di leen atte mooy position bi bokk na ci nag malaaka yi lay laaj ci biir bàmmeel yi benn bunt la ci bunt yooyu bokk na ci sooy jéggi siraat siraat benn pont moo ngi jaar diggante diggante safara jahannam mbooleem mbindeef yëpp dañ koy jéggi alquran ne woon nañu wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika hatman maqdiya amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat bés pencum yàlla ba ci yonent yi yonent kenn ku ne xam nañ ñoom ñëpp dañoo texe amul benn problème waaye il faut ñu jéggi siraat bés pencum yàlla waaye jéggin gi moo wuute moo ngi mel ni tali rek man nga jéggi tali fekk yaa ngi sa ñaari tànk oto sër la nga daanu nga gis ko benn lafañ jéggi alhamdulilah ci jàmm jéggi dem te fekk amul tànk mooy misaalu siraat siraat jëf yi la jëf yi jéggi moo ngi tegu yonent bi nag nee ne su ngeen di eh, rey xaru tabaski jënd leen xar ngande ndax kenn ku nekk ci sa xar ngay war sooy jéggi siraat azimu mataayakum fa innaha ala siraati mataayakum azimu daxaayakum fa innaha ala siraati mataayakum mm-hmm. màggal leen seeni xaru tabaski ndax su ngeen di jéggi siraat des pencum yàlla moom ngeen di war da nga gis ku jéggi siraat te du yëg ne sax jéggi na siraat am ñoo xam ne dañuy jéggi siraat te siraat fond la boo xam ne moo gën a yëngatu jaan moo gën a sew karaw te moo gën a tàng safara te moo gën a ñaw lancet boobu nag jéggi fa su soo yàlla ak jëf yu baax dana jafe am ñoo xam ne dañuy jéggi ba wadd ci biir safara jànnam am ñoo xam ne ay kalaalis ñoo leen di këf ay lenge ñoo leen di këf sànni leen ci safara bi ndax seen jëf baaxul woon luñ sax jéggi waaye boobu bunt la ci bunt yi nga xam ne ñoo nekk diggante doomu aadama ak yàlla yonent bi nee na juróom-ñaari bunt la bokk na ci suñ lay jox sa téere ba nga xam ne moom la jëfoon ci baax ak ci bon bisu penc mi yàlla yonent bi nee na alquran moo ko wax ne kenn ku nekk la nga jëfoon dañ ko bind malaaka yi bind nañ ko te ñaar lañ soo defee lu baax malaaka bi féetee ndeyjoor bind moom moo yëlif bi féetee càmmoñ soo defee lu bon ci féetee càmmoñ bind waaye balaa moo bind malaaka bi féetee ndeyjoor def ko xaaral ba mu baalu ak su baalu ak su waxul astaxfirullah jéggalul la doo ko bind ñaari malaaka yooyu dañuy bind soo sa dund su jeexee ñu lem ko mu nekk téere xaar def pencum yàlla ñu jox la ko suñ la koy jox im maa ñu joxee la ko sa loxo ndeyjoor texe nga wala ñu joxee la ko sa loxo càmmoñ texe xa nga sa yàqu na wala ñu joxe la ko ci sa ndigg maanaam dañuy bënn dañuy dañuy bënn ci sa ndigg jaarale foofu téere bi bënn sa dënn jox la ko loolu moom mu musiba loolu looloo gën a bon ñetti position yi ñu am ñaar yi suñ ko joxee rek téere bi yow xamal ne sa mbir baaxul waaye naa Umar ibnul Xattaab yonent bi nee ne moom la yàlla di njëkk jox téereem bés penc mi yàlla naa Umar ibnul Xattaab muy tëb kontaan ndax ci loxo ndeyjooram lañ koy joxe mu ne haa umu qra'u mu zanantu anni mulaqin hisaabiya mhm. kontaan ne jàng leen sama téere yi nii xam nga lu baax a nekk ci téere bi waaye su nekkoon ne lu ñaaw a nekk ci téere bi mhm. du tal di wax jàng leen sama téere bi sama téere baa ngi nii jàng leen mhm. kon soo ko tiyee da ngay wut foo làqatu di xool la fa nekk Seydina Umar ibn al-Khattab moom la ñuy njëkk jox téeréem bésu tey suñu yàlla ñu ne yonent bi waaw boobu ana abou bacrin mu ne hay haata waqad safattul malaikatu fi janna hmm. mu ne wu boobu abou bacar malaaka yi këf nañ ko comme ni ñuy këfee céet céet céet duuru ni ñuy këfee céet yóbbu yóbbu ko ci néegu jëkkëram mu ne boobu këf nañ abou bacri comme noonu ba yóbbu ko ci ajana moom moo ngi bànnee ko ci ajana yi ñi ñuy doog a jox seydina euh, umar ibn al euh, téeréem ci loxo ndey joram ko yooyu yooyu ay bunt la di jaar diggante nit ki ak ajana waaye nag bokk na ci tamit peese yi nga xam ne dañuy peese sa bés ci sa jëf yu baax ak sa jëf yu bon alquran ne fa ma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya képp koo xam ne ñu peese nañ sa jëf yu baax peese bi diis lool xamal ne yow kat ci ñu texe ñu nga bokk bu nekkee ne peese bi woyof na xamal ne yow ci ñu texe nga bokk sayyidatuna ay jabaru yonent bi la laaj na yonent bi mu ne ko waaw eh, bésu penc bi yàlla moom xanaa mbaa jëkkër dana fàttaliku jabaram yi dana ko arrangé su nekkee ne jëkkër dana fàttaliku jabaram ndax moom yonent yàlla mu mooy jëkkëram su ko yonent bi fàttalikoo mbir yëpp baax ci moom mu ne waaw bésu pencum yàlla ak kiis yi mbaa jëkkër dana fàttaliku jabar yonent bi ne ko waaye ñetti palaas moom kenn du fa fàttaliku kenn jabar du fa fàttaliku jëkkër jëkkër du fa fàttaliku jabar mu ne ko yan place mu ne ko sooy jéggi siraat xamoo ne da ngay jàll wala da ngay surux ci mu ne foofu kenn du xalaat sa jabar mu ne ko tamit suñ lay jox sa téere xamoo day joor la ndax téere bi day jóge ci jaww ji di naaw di def nii day joor càmmoñ léeg-léeg doo xam fan fan la téere bi di mujj kon bu boobaa foofu téere bi suy def nii doo xam doo xalaat foofu sa jabar mu ne ko ak ban mu ne ko suñuy pees ci jëf yu baax yi ak yu bon yi léeg-léeg balance bi day xam nga doo xam yu baax yi ñooy ëpp wala yu bon yi foofu su balance bi nekkee di def nii mu ne foofu kenn du fa xalaat sa euh, sa jabar waaw foofu la xalaat kenn euh, balance yooyu nag yooyu la alxuraan képp ku yow fexe nga bokk nga ci ci ajjana yi waaye mooy diisal balance yi nañ ko xam jëppi léegi pour suñ demee ñu mën a xam euh, suñ balance nan nañ la ñuy def ba suñ balance diis mu ne yay diisal yay diisal balance bokk na ci nga am doom mu dee te booba majooragul sa doom boobu bés pencum yàlla dañ koy jël moom moom ci jëmu boppam teg ko ci balance xam nga loolu day diisal balance moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam àndoon ak ñenn ci saaba yi gis benn terrain bu yaatu dara nekk ci mu laaj kenn ku nekk yow terrain bi lan nga ci mbébatoon bokk na ci li Seydina Ousmane wax terrain bi de bëggoon naa am ay doom ba fees yoo xam ne majoré buñ ñoom ñëpp ñu dee fekkee ay ndaw lañ moom xam na li ñu jublu ci loolu mooy ñoom ñëpp dañ leen di teg ci balance am def teg ci yàlla kon balance bi day diis hmm. Seydina Ali ibn Abi Talib nag moom nee dafa bëggoon terrain bi fees dell ay ci yéeféer ay noonu yonent bi noonu l'islam mu cee jàkkan di xeex ak ñoom di leen rey bañ jeex keneen wax leneen keneen wax leneen waaye li ma bëgg a wax mooy yay de yay feesal yay diisal balance de si pencum yàlla bokk na ci fajal mbokkum jullit soxlaam waaw ku am soxla mënu koo faj nga fajal ko ko bés pencum yàlla day diisal sa balance bokk na ci jàng alquran ak jàngal nit ñi tamit alquran wala ay hadith yeneen wala téere yi ak tamit encre borom xam-xam encre borom xam-xam borom xam-xam yi seen encre yi seen daxaa yi ñuy bindee yooyu day jiital euh, day jiital balance nit su xeexee ci yoonu yàlla ba ñu rey ko deretam ni mu fooree encre borom xam-xam ni moo ko gën a foor ci yàlla midaadul ulamaay azamu ajran inda allahi min dami shuhada yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na midaadul ulamaay encre borom xam-xam yi azamu inda allahi moo gën ca yàlla moo gën a rëy ci yàlla min dami shuhada yi deretu martyr yi nga xam dañoo xeex ci yoonu yàlla bañ rey leen seen deret ni mu fooree mu ne encre daxaa borom xam-xam yi dig bi borom xam-xam yi di bind encre boobu moo gën a foor mhm. moo tax xam-xam ko foor xam-xam dafa foor bokk na ci yi nga xam ne day diisal balance mooy nga topp néew maanaam ñiy suuli néew nga topp ci loolu day diisal ta balance ba ci sëñ yàlla suñuy pees say baax yi ak say bon yi jéego ya nga daan jéegu topp ci néew bi dañ koy teg ci balance Euh, ak tamit bëri looy wax astaghfirullah astaghfirullah ma tegtal leen ci istighfar hijri bi ku man na ko def bés bés bu nekk donte benn yoon la istighfar hijri mooy bi yonent bi gàddaayoo jóge Màkka dem Madina mm-hmm. bi mu gàddaayoo jóge Màkka dem Madina moom yonent bi mm-hmm. ak tey ñaata at la ñu ne junni at la mooy mille quatre cent trente quatre ans mm-hmm. mooy junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak ñeent Mm-hmm. mooy nga koy def ci astaghfirullah borom xam-xam daal nee nañ soo ko defee astaghfirullah doo defee benn bàkkaar bés bu nekk benn yoon su at yi yokkoo nag suñ demee ba déwén nga yokku nga def mille quatre cent trente cinq fois su yokkaatee nga def mille quatre cent trente six fois loolu mooy istixfaar hijri bi waaye astaghfirullah ala kullin day day jiital tamit balance boo xam ne moom la ñuy peesee te yiw ak tey bés pencum yàlla bokk na ci kas bi subhanallah ak alhamdulillah subhanallah ak alhamdulillah ak allahu akbar xam nga yooyu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa wallahu akbar day diisal ak sara day diisal tamit feesukaay ak sa taalibe bi lay liggéeyal wala sa mbindaan bi lay liggéeyal nga koy woyofalal liggéey bi maanaam sa serviteur bi lay liggéeyal nga koy woyofalal liggéey bi ولا نفسي جاكولي ادم الاعانه اهانه قريا لين ادم الاعانه ياك دمبل اهانه مو ترخ الله كلاي لي جيل ورولا سافورنا دوبل تلا واي نجا فالكو ندير يرمانه لو تامي دي ديتال سا سوتا تيس كاي دي سنتي يالا حتى مي ترسي ديتا بس كي تامي دي ديتال سا سوتا اك ñuy suul sa mbokkum jullit nga daal di ci suuf si sànni ci bàmmeel bi ngir barkeelu ci cof boobu ngay cof sànni ko ci donte benn la mën na diisal sa seesukaay def seen seen yàlla eh, yii nii la boroom xam-xam yi tënk eh, ne defu seen seen yàlla yi su nekkee ne yaa ngi koy def day diisal sa sa bam sa sa peesukaay mooy sa sa yu yi fàttaliku nag yooyu day yokk ngëm yàlla wa wa nasiri sahaayisi wa maa fil jahimi nañ fàttaliku li nekk ci safara jànnama mm-hmm. min sibaqin wa min sibaqin mooy ci ay escalier ajana safara safara ay escalier safara ay escalier bi ci gën a bi gën a xóot mooy ci gën a tàng mm-hmm. moo tax yàlla ne laa fexe yi ñoom ñoo gën a xóot le bés pencum yàlla fi nekk ndax eh, ñoom ñoo ngi ci ñoo ngi ci garaat bi gën a yées yéeféer yéeféer ci boppam garaatam euh, kaam garaaw na trop waaye nag naa fexe kaam moo gën a garaaw yéeféer mm-hmm. ndax day wax ne gëm naa te fekki gëw ma ajjana mm-hmm. yi juróom-ñett lañ waaye safara yi juróom-ñaar lañ ajjana yi juróom-ñett lañ safara yi juróom-ñaar lañ mm. safara yi nag moom bi ci gën a woyof safara bi ci gën a woyof mooy jahannam topp ci laza topp ci safara bu tudd xutama topp ci safara bu tudd sair topp ci safara bu tudd saqar topp ci safara bu tudd jahim topp ci safara bu tudd haawiya juróom-ñaari safara yi la bu nekk nag am na ñu ko yàlla jagleel waaw bu nekk am na ñu ko yàlla jagleel soo déggee ñuy wax jahannama moo ci gën a woyof boobu jullit ñi mooy yàlla ba seen mooy yàlla ëpp seen jaamu yàlla ñu lañ ko dencal suñ demee si leen yàlla jéggalul ñu lakk leen lu toll ni seen bàkkaar ñu génne leen moo tax jànnama moom bés leen a ñëw fekk kenn nekkatu safara jànnama mm-hmm. ndax pour jullit ñi def te jullit ñi amul ku fiy sax ci safara abadan dañ lay lakk ba sa bàkkaar jeex su la yàlla jéggalul ñu lakk la ba sa bàkkaar jeex su la yàlla jéggalul ñu génne la su la yàlla jéggale na nga dugg Euh, boobu jullit ñi la waaye am na gu gu tudd Lazare googu chrétien yi la ko yàlla dencal. Mhm. Lazare chrétien hmm? waaw am na beneen boo xam ne mooy xutamatu. Mhm. boobu yàlla nga ko dencal yahud yi. yal na leen yàlla alal. amiin sarru xalqillahi fi ma ara. boobu mooy eh, safara bi ñuy tuddee xutama hmm. am na bu tudd sair moom mooy ñeenteel bi saabi uuna yi la ko yàlla dencal saabi uuna yi mooy nee nañ ñi fi yoon yàlla Idris lañ ci kaddu waaye saabi uuna yi mooy ñii dañoo génn ci diine nasaara mooy chrétiens yi ñii génn ci diine yahud mooy jiif yi ñu daal di daje hmm. ñu tuddee leen saabi uuna ñooñu ñoo moom yaa ngi dégg de safara boobu hmm. nisaiha ah. euh, safara moom mooy juróomeel bi yàlla dencal na ko majuus yi mhm. mooy ñiy jaamu safara ñoom la yàlla dencal safara am jahim mhm. ñoom la yàlla dencal ahli shirki ah les animistes jaamu xërëm yi juróom-ñaareel bi mooy haawiya boobu naa fexee ko moom boo gën a suufe moo gën a tàng yàlla nañ ci yàlla musal yii nii ñooy qualité safara yi bés pencum yàlla yàlla neen lahaa sab'atu abwaabin li kulli baabin minhum juz'un mhm. juróom-ñaari bunt la bunt bu nekk am na ñu ko yàlla sédd comme ni ma ko tuddee nii ajana tamit ay catégorie la bi ci gën a koy mooy firdaws mooy fañ nar a daje ji ëllëg di naan law wala jé ak njar ci ci am yakunu hmm? fi haadihi ka tilka fi niamin wa hum bi raybihim min fadli mawlaayi bàyye ko bay na nakunu fi haaji dinañ nekk ci adduna bi ka tilka comme nañ nar a nekkee ci ajana fii nii amin ci xéewal ci xéewal rek la nekk yaa ngi dégg waxum noonu bi xëy bi mu nekk ci seeni nar mun bi mawlaayi ci ngeen dugg yàlla ajana yi nekk nañ juróom ñett ndax yërmandeg yàlla gis ngeen nim yaatoo safara yi nekk juróom-ñaar ndax yërmandeeg yàlla yàlla yàlla jël ajana yi gënale ko eh, ci kaw safara yi safara nag soo ko déggee bu ko yaakaaree comme suñ safara yi nga xam ne eh, moom la ñuy toggee suñ togg yi lii daanaka misaalu saxaar la saxaar mhm. ci safara xam ne moom la gaa yi na rafet ci foofu ndax am na benn borom xam-xam bu ne yàlla bim sàkkee ñeenti malaaka yi di jibril ak mikaayil ak israfil ak azrail mhm. kenn ku nekk am na mission ba def azrail malakul mawti mhm. ñu taxoon lu taxoon ñu jox ko mission wu muy rey doomu aadama yi ndax jibril moom la yàlla jox mission eh, muy dox diggante yàlla ak yonent yi mhm. Mikaayil moom la yàlla jox mission taw yi ak wërsëg yi mhm. Israfil moom la yàlla jox mission mu ëf ci trompette bi mooy ci baba gi def pencum yàlla si yàlla bi arrêté adduna bi Azraïl nag ne ne amuñu woon amu amul woon mission mooy malakul mawti ki nga xam ne moom la yàlla dénk ruuxu doomu aadama yi pour muy rocc ruuxu doomu aadama yi seen bakkan yi bi yàlla wàccee aadama ci suuf jëlee ko ci ajana mhm. aadama def ne yàlla damaa bëgg a togg waaye aw ma safara bu ma toggee yàlla ne jibril mu ne ko ah mu ne ko demal ma ca malaaka bi garde safara bi maalik la tudd hmm. nettali nañ ne moom musul reetaan bi ko yàlla sàkkee ba léegi hmm. ndax yàlla def ko sàkk ci meru bu yàlla moom maalik kulika min ghadabillah waaw hmm. ah, parce que yàlla position bi mu ko teg noonu rek la mën a mel ci meram rek la ko mën a sàkk pour mu mën a jëflante ak ñay foofu yàlla sàkk na malaaka bi gàdd safara bi Malick ci meru bu yàlla yonent bi nee ne dafa ñàngal kanam gi ba ni ko ñàngalee am na benn pas-pas gu fasu ci ci jée bi mu ne suñ tegoon pas-pas bi ci juróom-ñaari asamaan yi mën nañoo màgg moo ngi taxaw ci buntu safara di gàdd safara yàlla ni jibril mu ne ko dem mu ne ko demal ci Malick may gàdd safara bi nga ne ko na la am na la jox lenn ci safara nga dem jox aadama mu am lu mu toggee mm-hmm. jibril ba ne Malik mu ne ko ah mu ko yàlla nee nga jox ma ci safara tuuti ma yóbbul aadama mu am lu mu toggee Malik ne ko est xam nga dëgg safara fu mu toll Jibril ne ko déedéet mu ne ko benn fett rek fett safara su ko jëloon teg juróom-ñaari suuf mu lakk juróom-ñaari suuf yëpp nga may laaj safara pour aadama toog ah jàllal Jibril daal di dem nettali yàlla loola yàlla ne waaw ana Mikaayil ci yoroon wërsëg yi mu ne ko maa ngi nii mu ne ko demal ma ci Maalik nga ne ko dama joxal aadama lu mu toggee Maalik ñëw Mikaayil ñëw ne ko Maalik Maalik mu ne ko ah mu ne ko yàlla nee nga dimbale jox ma aadama yépp aadama lu mu toggee ci safara mu ne ko est-ce xam nga luy dëgër safara mu ne ko déedéet mu ne ko benn fett safara su ma la ko joxee soo ko tegee ci juróom-ñaari suuf doomu aadama yi sax dootuñ mën a dundee ci kaw suuf ma may laaj eh, balaa ngaa laajte da ngay xam lii safara ne waaw kon baax hmm. ba mu delloo yàlla ne ana Israfil mooy kii ëpp ci trompette bi bés penc yàlla mu ne maa ngi mu ne ko demal ci Malick ne ko na la jox nga yóbbul aadama safara mu am lu mu toggee bi mu ñëwee ne Malick mu ne ko ah mu ne ko yàlla nee na nga jox ma benn fett ci saqara pour ma yóbbul aadama mu am lu mu toggee mu ne ko mënoon ngaa laaj ba balaa ngaa laaj ca safara mënoon ngaa laaj lan mooy dëgër safara est xam nga ko mu ne ko déedéet mu a ñëw di laaj ca safara yow xamoo luy safara mm-hmm. Israfil ñibbi yàlla ne ana Azrail mooy malakul mu ne maa ngi nii mu ne ko demal ma ci Malik mii gàdde safara nga ne ko na la abal foofu benn fett safara nga joxal ma ko aadama mu am lu mu toggee moom ngi ca kaw suuf suñ bàyyi aadama dañ ko wàcce ca ajana ngir benn mooy yàlla gi mooy yoon yàlla mooy yàlla def ko ne garab yi nekk ci ajana yëpp lekkal waaye bii bu ko par yàlla def iblis ñëw ne ko soo gisee yàlla tere la garab gi mooy soo ko lekkee yow dootoo deewatu gis pencum yàlla loolu la la bañal nag moo tax mu ne la bu ko lekk wa xaasamahuma inni lakuma la min annaasi <laughs> mu ci ngeen ñi gën a màgg moom iblis mais inni lakum ala min annaasi dama leen di laaya biir de waaw garab gii mooy sajaratul xuldi wa mulkin laa yabla mooy garabu xuld boo xam ne soo ko lekkee fi ngay nekk ba abadal maa yab ak nguur boo xam ne du rab mu gënal leen ci yàlla nag nga def leen di laaye biir bañ lekk ko bañ ko lekkee aadama nag yàlla nekk comme que loolu la wàccal parce que maqaama yu kawe yi kii mooy yàlla moomu kon wàccal gis nga mooy yàlla moom yéegal amuñ mooy yàlla wàccal rek moo ci am Mm-hmm. ndax mooy yàlla soo mooyee wàccaat rek la wax waaye yéegal amul ndax si maqaama yi kaw yi mooy yàlla amul foofu mm-hmm. ak Azraïl ñëw ne ne Malik mu ne ko ah, mu ne ko yàlla ne ne nga jox ma benn fett safara ma yóbbul aadama pour mu taw mu ne ko xam nga luy dëgër safara Azraïl ne ko yow yàlla mi sàkk safara te teg la fii pour nga gàddi safara bi ku gën a xam dëgër safara mu <laughs> ne yàlla mu ne yàlla moo ma la ko gën a xam moo ma yónni nee na nga jox ma fett safara ma yóbbul aadama waaw demal jëlal fett safara lu ko xew yow la man sama yoon nekku ci nee nañ mu jël benn fett safara jox xikaaya bi nag am na ci borom xam-xam yi yu ne wérul parce que malaaka yi yàlla du leen digal ñuy bañ loolu texte alquran la nafsu alquran la am nañu ne yahudi ñoo ko dugal ci téere yi waaye bokk ci parce que alquran def ne laa yaatuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna maa yumar lan mooy malaaka lan mooy malaaka malaaka yi ajsaamun maxluqatun min nuuri mhm. laa yaatuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna maa yumaru laysu bi zukurin wala bi inaatin laa yaakuluuna wala yasrabuuna wala yanaamuuna wala yatazawajun mhm. malaaka yi ay yaramu leer lañ duñ ay góor duñ ay jigéen duñ lekk duñ naan duñ tey duñ jur fuñ nekk ñoo ngi tudd yàlla mooy seen lekk mooy seen naan te laa yaatuuna allaha malaaka yi duñ mooy yàlla maa amarahum ci lumu leen digal wa yafaluuna maa yumaroon lépp lu mu leen digal loolu la ñuy def lii nafsu alquran la alquran moo wax laa yaatuuna allaha maa amarahum kon nag maali su nekkee ne malaaka la kon suñ ko waxee ne yàlla nee ne danaka jekk warul bañ waaye ci niñ nettali hikaaya bi nee nañ ba mu jëlee carte ba moom Azraïl def ko dugal ci bahrul muhit géej gu léemu kenn xamul géej googu nee nañ multiplié wu ne àdduna juróom-ñaar fukki junni yoon mu lakk géej yi cinq océans yi mu lakk cinq océans yi bañ ba nee nañ moo tax ci biir géej yi sax safaraa ngi sama itam sa nga baag pétrole yi mm-hmm. ñoo ngi jëlee ko ci tàngooru fett safara googu mu teg ko ci suuf mu lakk suuf ci juróom-ñaareel suuf ba suuf si biir suuf safaraan fa doj yi dañoo am safar ba sax garab dana sax fekk garab gu tooy la fekke safaraa ngi biir ngir lan ngir fett safara googu di di lakkoon ba juróom-ñaar bi mu jël nag fett bi delloowaat ko Maalik mu ne Maalik mu ne ko mu ne ko sa fetta ngi nii mu hmm. daal dellu ci aadama mu ne ko aadama mu ne ko ah, mu ne suuf si am na safara garab yi am nañ safara géej yi am nañ safara safaraa ngi fu ne soo jëlee doj dóorante ko ci doj sax nga gis set safara jëm mu ne ko soo bëggee togg mango euh, jahannama ñi fàttaliku ñi fàttaliku jahannama euh, ak li nekk ci biir jahannama ndax yonent bi nee ne danañ jël yéeféer dugal ko ci juróom-ñaar fukki junniy kees kees ci biir kees kees ci kees ku nekk juróom-ñaar fukki junniy xeetu mbugal ñoo nga fa ñu sànni kees bi ci safara mhm. kees bi nekk di tëmb ci safara juróom-ñaar fukki junni ak soixante-dix mille ans doog a yegg xóotaayu safara ji mu ne ka nekk ca kees ba moo ngi ci biir juróom-ñaar fukki junniy kees mhm. te kees bu nekk am na juróom-ñaar fukki junniyi soixante-dix mille xeetu mbugal mhm. ñu sànni ko juróom-ñaar fukki junni ak soixante-dix mille at moo ngi wéy ci biir safara ba yegg ci xóotaay bi mu ne su su jooyee kenn du ko yëg su onkee kenn du ko yëg su binnee kenn ko su waxee woyaa yooyu yaay amu fa baay amu fa mm-hmm. moo tax nga fàttaliku yooyu mu ne day yokk ngëm yàlla def lay tax tamit say ñu effacé la sa sa xol moo tax mu ne wa maa fi jahimi min ci baaxin wa hayyati mm-hmm. bokk na ci euh, yi nga xam ne day euh, day day yokk tamit ngëm yàlla mooy wa maa fi nga xalaat lu nekk ci ajana yi min naa yi min ciy xéewal mu abadin xéewal yoo xam ne ba abad ci ajana ajana benn borom xam-xam nee na seetlu na baatu aljanna yàlla tudd na ko ci alquran lu mat juróom benn fukki yoon ak juróom benn mhm. li ma guma ko mhm. aljanna baatu aljanna ñëw na soixante six fois ci alquran mu firi ajana dégg-dégg mooy yàlla mhm. ndax yàlla ba mu sàkkee mbindeef mi dafa am ñoo xam ne dañ ko ñaan àdduna foofu la seen yitte yem mu jox leen àdduna mu ne alaxira haram na ci yéen mu ne al axiratu haramun ala ahli dunia wa dunia haramun ala ahli al axirati fa dunia wal axira haramun ala ahli llah mu ne man ahabba man ahabba dunia képp ku bëgg àdduna xasira al axira perte nga al axira Mhm. yow dañ la jox aduna waaye alaxira mu amoo fa cër wa man ahabal axira képp ku bëgg alaxira xasira dunia perte nga àdduna mënoo bëgg alaxira ba pare bëggaale ko aduna soo bëggee alaxira ñu lay wax kon bàyyil aduna bi waaye wa man ahaballah ku bëgg yàlla xasira dunia wal axira ñu la bàyyil aduna bàyyil alaxira mhm. nga am yàlla kon yàlla bin mu sàkkee mbindeef bi dafa am ñoo xam ne seen yitte ci aduna la yéen ñu ñaan ko aduna yàlla may leen aduna. Mhm. mu ne àllaaxira araam na seen am ñoo xam ne seen yitte ci àllaaxira la yem mooy ajana ñu ñaan yàlla ajana yàlla may leen ko mu ne leen ah ajana fa leen seen yitte yem may naa leen ko waaye du ngeen mos nag man sama jëmm ju màgg gi gu kowe gi xam nga yàlla moo gën a màgg ci ajana yi ndax ajana dañuy wax toujours moo nga fa fekk yàlla nga ko fay bàyyi saa bu neexatul yàlla man na xëy benn bés rek ne ajana na jeex safara moo nga fa fekk yàlla nga fay bàyyi saa bu neexatul yàlla man na xëy benn bés ne na safara jeex mhm. waaye su nekkee ne ajana ak yàlla gi nga dugg mhm. moo tax yàlla tudd ajana yoon ak juróom mu dajeeg allah turu allah su nekkee ne ajana gi nga xam ne mooy ajana ak yàlla gi mhm. moom nga dugg yow yaa nga fa fekk yàllaa nga fa yàlla du fa deñ lan moo gën a wóor nga nekk fa ci nekk bu yàlla ak nga nekk fa fekk yàllaa nga la fay bàyyi ñaari nekk ci ban moo gën a wóor bi gën a wóor mooy nga nekk fa fekk yàlla nga fa mooy jannatul maarif moo gën a wóor ci kaw nga nekk fa fekk fekk yàllaa nga la fay bàyyi mooy jannatul zaxaarif kon ajana ñaar lañ jannatul zaxaarif yi baaqiyatun bi ibqa illah ajanay xéewal yi moo ngi def fekk yàllaa nga koy defal wa jannatul maarif yi waaye ajanay xam yàlla yi mm-hmm. baaqiyatun bi baqa illahi day def fekk yàllaa ngi def kon la def ci desug yàlla ak la def ci desalug yàlla am na différence moo tax aarifina billahi ñoom ajana bi ñuy ut mooy jannatul maarifi fa kulli muluki l ardi naamat uyunuhum fa haada ka mulku laa yubaau bi dirham bàyyi ñes ne na kulli muluki l ardi waxal buurub réew mi naamat uyunuhum nee nañ ñoo ngi ci xéewal di nelaw toujours fa haada ka mulkun waaye nguur ngi nii mooy nguuru xam yàlla la yubaau bi dirhami kenn du ko jaayee dërëm mooy jannatul maarifati mooy ajana xam yàlla bi la abu yazid al bastaami doon wax wali yàlla googu nee ne lawla aniinu sahar lama ahbabtu baqa bi hadihi daar su ngeen gisee ma des ci këru adduna ba léegi xam leen ne nooy ya may nooyi par fajar fekk te delliyaat maarifa billahi yaa ngi samay dënd may wax oh. mu ne loola ma fi bàyyi ba neexu maarifa billahi yooyu waaye su nekkuloon loolu konoon tàggu naa Mhm. kon ajana xam yàlla mu ajana ak yàlla ki moo gën a koy ajana gudul ajana ak yàlla ki te pourtant foofu am na ñoo xam ne si ay jigéen lañ sax te ay wali yàlla lañ bi mhm. ñuy ñaan yàlla ñaan ñu ko ajana bi nga xam ne day des ci desaluk yàlla mhm. mooy ajana xéewal yi mooy rabatu adawi adawiya benn jigéen la boo xam ne macha allah yàlla may na ko mu yegg ci maqaama yu kawe yi moo daan wax ak yàlla di ko wax uhibbuka hubbayni hubbal hawa وحبا لانك اهل لذاك فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عن من سواك واما الذي انت اهل له فكشفك للوجود حتى اراك قال الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكنك الحمد في ذا وذاك من يا الله بغنا لا نياري بغيل بغيلو قبي انتي نون دنج ما تاكي رك نون ما بغلا اك بغيل لو خامني دما ييو فك ني وارلا بغ ما بغلا او لانك اهل لذاك فاما الذي هو حب الهوى كنا كاين Euh, natt naturel bi nga xam ne ma jug rek bëgg la mhm. ah fa suxli bi zikri ka am man si waaka li koy wone mooy fu ma toll maa ngi la tudd ndax man ahabba shay'an akthara zikrahu mhm. ku bëgg dara bari loo koy tudd fu ma mhm. toll rek maa ngi lay tudd yow yàlla wa amma alladi anta ahlun lahu waaye mbëggeel gi nga xam ne damaa xool fekk nga yelloog ñu bëgg la ma bëgg la loolu li koy wone mooy fa kashfuka lil hujubi da nga maa dindil kiiraayi hatta araaka ba ma janoog yow waaye falal hamdu fi za wala zakali sant bi ci ñaari mbëggeel yëpp ko walakin laka alhamdu fi za wa zaka waaye yaa moom cant bi ci mbëggeel gii mooy tabiya bi mooy xawaa gi ak mbëggeel li annaka ahlun li zaka kooku jigéen la mhm. benn bés moo ngi wax ak yàlla mu ne ñëpp a ngi lay jaamu yow yàlla ngir ragal safara ak bëgg a dugg ajana mhm. man de laysa lii bil jinaani wan naari xasdun ana la abtagi bi hubbi badila mhm. mu ne kulluhum yaabudunaka xawfa naari jigéen ay wax de jigéen mu ne yàlla ñëpp a ngi lay jaamu ngir ragal safara ويرون النجاة حزلا جزيلا جسنا كنت جنري موني ناك دوغ سفر او ان سكنوا الجنان فيحظوا بقصور ويشربون سلسبيلا أه. ولا ديك في اجنا دينام في سلسبيل ما او سلسبيل ديك في ساحي رفدي من يب سن لي جامو نياري موتاخ ني لي جامو موي راغال سفر اك بوغ دوغ اجنا من من نك يالا من من رابي ليس لي بالجنان والنار حظ ليس لي في الجنان والنار حظ انا لا ابتغي به في بديلا man aw ma soxla ci safara aw ma soxla ci ajana man dama lay jaamu ngir yow yow yaay ajana bi gën a màgg ah, benn bés sax ndeysaan mu dégg benn waaye di jàng alxuraan ba jàng ne ci ajana ah am na ay meññet ay fruits wa laxmu tayrin am na yàpp picc xam nga yàlla ko ne mu ne ajana am na laxmu tayrin mi maayi sewun la laxamu tayrin mooy yàpp picc waaw yàpp picc yàpp picc am na ndeysaan moom Rabia bi mu déggee laay bi ndeysaan mu enqatay reetaan ne est-ce que ne loolu mbiru xale yi la xale yi la ñuy naxee loolu ay firi yi ak ay yàpp picc ah mu ne mu ne mu ne nit sa yitte war naa yëkkati ko ci yàlla ba doo ko jaamu ngir yàpp picc wala yàpp picc laxamu <laughs> tayrin maa yittewu na nañ jaamu yàlla ngir jëmm yàlla gi ñun ahlul faydati foofu la ñu bàyyi yóbbu ahlul faydati tijaaniyya foofu la ñu bàyyi yóbbu ñun jaamootuñu yàlla ngir bëgg a dugg ajana parce que xam nañ ajana su neexee yàlla rek mu xëy jëlee ko fi loolu taxuñoo jóg luy changé luy soppeeku taxuñoo jóg waaye ki nga xam ne moom du soppeeku abadan mooy yàlla ci boppam ajana googu gën a kowe googu la ñuy yàlla yàlla ñu ko yàlla may kon yemale ko fii ndax dafa am ñu ñibbi fu sori seeti ñi tar bi ñu gisee ak ñoom alhamdulilah wala daawaanaam axira walhamdulilah